alhamdulilah wasalaatu wasalaamu wala rasulillah ah, mbokk yi ñu leen di nuyu di laaj seen jàmm seen jàmm yaram ah, dañoo nekk ci ay programme rek moo tax daanaka yombatul eh, ñuy teew waaye danañ teew balaa yàgg incha allah dafa am kàddu gu waxoon te man ci saambooram alxuraan laa bokk bokkuma ci saambooram histoire nettalikat yi ah, waaye saamboor laa ci alxuraan dama waxoon ne misra gi ñuy wax nii bokkul ak misra ga Firawna doon wax ah, waxuma ne misra googa nekkul woon fii mbanaar yi nekk waxuma lool de dama ne misra gi ñuy wax nii bokkut ak misra ga nga xam ne moom la gaa yi di nettali ma tudd ci ba tudd ci yaman ndax dañoo wax ne amaalika yi lañ ragal ne ñoo tabax mbanaar yi àddina nag yàgg na ba yegg ci lool waaye li ma doon bëgg a leeral noonu ma junj ko noppi maanaa dama wax ne na daram disul misra lenn lu mu fa masa def lu fa yàlla bàyyi lu dul jëmmam jooja amut lanu najjiyannaka bi badanika képp du tabax du kër du ay tool du dara damay cajaxe lépp sa jëmbi ji daal laa fi bàyyi waaye du fi bàyyi leneen moo tax ma ne mbanaar yooyu surtout xoofu ak rakkam jooju mu dendal mbanaar yooyu sax am na ñuy wax ne fekk nañ fi tuufaani nooyin ndax dafa mel ni mbanaar mi fi la ko topp su tuufaani nooyin fekk ndax li tax ñu ne dafa mel ni fi la ko tuufaani nooyin fekk mooy mbanaar moom ak moom muy wax xóofoo dafa mel ni lu masa nuur ci ndox dafa mel ni lu masa nuur ci ndox te yàgg ci sax lool ba raax bi dafa xobbeeku ba ca njong la njong la rek des fa waaye la ca dale ca njong la wàcc jëm si daa mel ni raax bu xobbeeku la waaye njong la na mu amee raax daa mel ni rax boobu ñu wër na ba ci suuf ñii di wax ne boo demee tuufaani nooyin ji moom moo fa demoon ñi ne déedéet man naa am sax loolu mu jiite tuufaani nooyin ndax ndax inondation yi àddina yëpp yi fi xew yëpp yàlla waxu ko nit ñi euh, ndax suuf mas naa daj euh, ak kapp akam ndox waaye misra gii ñuy wax bokkul ak misra googa ma ne misra nag dëkk bu mag rekk lay tekki waaye ab dëkk mën naa mag ñu tas ko ba mu tasaaroo ñu toog ay at wala ay siècle dëkk ba tekkiwaat waaye nag bu yàlla nettali histoire dëkk bi nettaliwul histoire dëkk bi ngeen di gis <laughs> dañoo bokk ay tur rek ay turandoo lañu waaye bu njëkk ba moom kenn waxaalewu ko yàlla dafa wax ne baada aoudu billahi min alcheytan irajim ci suratul araf wa awrasna alqawma alladina kanu yustadaafuuna mashariqa al ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alxusna ala bani israil bima sabaru wa dammarna ma kaana yasna'u firawnu wa qawmuhu wa ma kanu yaarichuun yàlla moom nee na na Moussa de ba ma ko jéggi ba ba nga xamee ne Moussa jéggi na ndax ga am na ñu nag ay kurtu karte yu yàgg ci diggante bi ba sax Moussa moom fekkiwu ko waaye nag ardul muqaddasa googu nga xam ne amaali xëye dañ faa nekkoon te gaa yi di wax naan inna fiha qawman jabbaariina demal demal yaa yàlla ngeen xeex waaye ñun fi la ñuy toog yàlla nee na mujj na ñu donale waa banu Israil ardul muqaddasa googu nga xam ne moo di Iliya bi yàlla teeralee nag ci nettali boobu dafa rep dafa reprendre delluwaat fa Muusa ak banu Israil jóge woon ne wa dammar naa maa kaana yasnau firawnu wa qawmuhu wa maa kaanu yaarichuun yàlla nee na firaw na moom aku nitam mboolem lu dul liggéey buñ fa def mbaa muy tabax buñ fa tabaxoon dama ko tajaxe dara desu fa loolu li muy tekki mooy la fa des ne ngeen di ko adressé firaw na bokkut ca la fa firawna la fa firawna defoon moo tax yàlla bàyyi ko fa waaye mbooleem loo xam ne na doon na ko fa def ak waa këram ci ay liggéey ak ay mandarga ki taax gi ay dëkkukaay yàlla ne dama ko dajaxe lépp dara desu fa loolu li muy tekki mooy la fa des gaa yi di ko xool bokkul ci li fi firawna def ndax bu bokkoon ci li fi firawna ñoom defoon yàlla da koy tajaxewaale ndax dane wa mar naa maa kaana yasnau firawnu wa qawmuhu wa ma kaanu yaarichuun te bañ demee fa fa misra nekkoon fekk dañ fa pyramide ya kon pyramide yi bokkul ca lañ fa def buñ bokkoon ca lañ fa def yàlla da koy tajaxee nam tajaxee lañ fa def loolu laa bëgg a wax mu leer ñi ne nee nañ pyramide yi amaalika yi ñoo ko fi def waaye nag bu fekkee ni pyramide yi fekk ni fi tuufaan yi nuyu moom amaalika yi ñu ko fi pyramide yi daal yàlla leen mën a wax ne diwoo ko fi def ñii naan ca jamono yonent yàlla eh, xaw ma nuñ koy waxeeti siise la lu nekk ñu ngi koy wax waaye daal misra googa firawna doon wax naan alaysa lii mulku misra anu aaru yaa ngi dox ci sama ron tay étage taxaw nii dara la fa yàlla bàyyiwul lu ngeen fa fekk rek fa la ko firawna fekkoon te fa la ko bàyyi waaye la firawna defoon foofu lépp yàlla dane wa dammar naa maa kaana yasnau firawnu wa qawmuhu lépp lu fa Firawna liggéey woon def ko fa mu di taax mu di ay tali mu di ay màndarga muy lum mën a doon dammar naa maa kaana yasnau Firawna wa qawmahu lépp bawuñu fa dara wa maa kaanoo yarishuuna ak luñ fa mas tabax arshul al arshu nag arasha nag mooy banaa mooy tabax na ñu jële ci arsu gi ñuy def mu di ak sugum te bu ñu ko ràbbee ba noppi tabax ko ak ban wékk ko ci kaw garab yi waaye yaarisuuna moom tabax lay tekki lu dul firawna desut misra lu ngeen fa gis ñu ne fa la ko firaw firawna fa la nekkoon rek firawna daa ñu fekk ko fa mu nekk fa ak moom te faraa ina yépp nag laa ko boole waaye li fi firawna bàyyi woon lépp yàlla daf koo tajaxe lépp lu doon ñoom lépp ñu fa tabaxoon yàlla daf ko fa jëlee kon lu ngeen fa gis mu def fa rek bokkul ci lañ fa tabaxoon kon dañ ko faa fekk yunt yàlla aadama nag moo fa njëkkoon a dëkk siise it mas na faa dëkk misraayim doomi doomi xam doomi noo indi mas na faa dëkk waaye mbanaar yéene bokkut ak yàlla nettali de dara la bokkut ak moom yàlla kay li muy nettali nee na lépp laa tajaxe boobu fa dara lépp laa tajaxe boobu mu fa dara wa qawmuhu jooju mu wax nag dafa mën a tekki ñamu fa maaseeloon jamono ak lañu fa def waaye wa qawmuhu jooju it mën naa tekki mbooleem la fa faraa'ina ya doon def lépp dammar naahu mën naa tekki loolu euh, waaye maam Adama moom moo dëkkoon foofu tudde ko yaay loon yaay loon noonu la dëkku bi tuddoon yaay loon noonu la dëkk bi tuddoon waaw te it misra ga go go googa nga xam ne moom fala fala ñoom fara ina ya nekkoon di lëmbe eh, ginnaaw yàlla isa daal yàlla nee na luñ fa defoon dindi naa ko luñ fa defoon rek dindi naa ko kon lu ngeen fa gis rek am firaw na defu ko fa loolu laa doon bëgg a leeral wasalaamaaleykum wa rahmatullah